auzu billahi mina seytaani rajim wa inniya u'iizuhaa bika wa suriyatahaa mina seytaani rajim rabbi auzu bika min hamasaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yaxduroon bismillahi rahmaani rahim ñi ngi ñaan cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke yàlla na fi dole yàggat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ di faal moodu mbenda ñu gën koo xam ci jaxu jaxunay ba sala penda mi des ci ngaraaf ardo ma nga maafaan waaye pël baa nga mboobeen muudu mbenda faal jàmbaari carrière waaye muudu mbenda faal seenoon duñu ree di ko ñaanal bu baax sëriñ abibu mbàkke mi nga xamante ni moo jiite liggéey bu tedd bi nga xamante ni mooy tubaa ca kanam ak mbooleem ñim seqal liggéey bépp rek waaye di ko ñaanal nixmal xalifatu Serigne Cheikh bintu Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na di xalifa sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar di jàmbaar lool waaye di siyaare bu baax jotaay bu sell bu tedd bii nga xam ne at mu ne buñ tollee ci waxtu wi xel yëpp dem ci social Touba ca kanam waaye sunu yaay soxna Amy Yalla Ndiaye at yëpp sunu borom day dogal mu koy fekk bitim réew waaye ren ji sunu borom taw feexal na ko ba sunu borom def na taw tawféex ba ñi ngi toog ak ñi ngi jot a toog ñi ngi ñi ngi tey jii la njëkk ñu toog ak moom ci liggéey bu mel nii muy liggéey social Touba ca kanam waaye di siyaare jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la àndal liggéey bi bu ñu tuddee sunu baay baay Malick Sarr Murid Sadikh di doomi baay Mour Sarr Matt mu maam Serigne Fall Babul Mouridine di kenn ci soxna si waaye di siyaare jàmbaaram ji ndey jooram genn wàllam muy soxna ndey mbuub borom këll gi bëgg sëñ fàllu ñu ngi koy siyaare bu baax mi ngi si jotaay bi waaye di siyaare bu baax soxna Fat jóob Baye Maas ñu ngi koy siyaare bu baax di ko bëggee di ñaan yàlla suma bi yokk ay xéwalam waaye di siyaare bu baax sëriñ mi nga xamante ni eh, ci kër gi la ne di jàppale soxna si ci liggéey bi muy sonn si dajale bi fu ko waay yónnee rek mu jugee bitim réew ñëw fii Sénégal ci loxoom lay ne ba keroog soxna si di agsi ñu ngi koy siyaare bu baax waaye di siyaare sunu xarit bu tedd bii ñu ngi koy siyaare bu baax a baax soxna Ndey Diop ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di ñaan yàlla su borom yokk ko waaye di siyaare bu baax sëriñ Jili moom di kenn bokk ci jàmbaar yi nga xam ne ñu ngi ci jàppale soxna si ci mboolem daayira yi nga xam soxna si jiite na ko muy daayira subulu salaam muy pari Paul 10 muy groupe Baye Fall international muy association Mika ak mboolem daayira yi nga xamante ni soxna Amy Yalla Ndiaye jàmbaari Touba ca kanam waaye soxna Amy Yalla Ndiaye ambassadeur u Mame Seynabou Ndiaye waaye soxna Amy Yalla Ndiaye président association Mika waaye soxna Amy Yalla Ndiaye jëruñ daayira Mame Seynabou Ndiaye par waaye bu ngeen gisee soxna Amy Yalla Ndiaye muy dem jaru ngay laajte waaye yittey Touba ca kanam la def mbégte soxna Amy Yalla Ndiaye di jàmbaar di ñayu xare at mu ne mu ànd ak daayira yi nga xamante ni ña nga Paris yëpp rek ak mbokk yi nga xamante ni ñu ngi Sénégal daayira Jawartulaa daayira Jaalibatu daayira saalihaat waa kër sëñ Saaliw ndigal cuun ak mboolem daayira yi nga xamante ni ña fi ña fi fi nga xamante daayira ijaratu daayira ijaratu ak mboolem daayira yi nga xam ne ña nga Paris yëpp rek incha allah soxna si dina si ñëwaat ñu ngi leen di sant bu baax eh, di leen gërëm di ñaan bu baax soxna am yàlla Ndiaye liggéeyaakoonu maam seeni bu Ndiaye waaye soldaaru maam seeni bu Ndiaye waaye ambassadeur maam seeni bu Ndiaye waaye jëwrinu daayira maam seeni bu Ndiaye Paris diaspora waaye ci Touba ca kanam at mu ne soxna si organiser foofu cantu maam maam seeni bu Njaay di ko defal maamam waaye gàcce nga la ma jàmbaar ji nga xamante ni moo ànd ak soxna si di ko jàppale muy Serigne Cheikh Bintou Fall di xalifa sëñ Mourou Ablaye Fall Ndar di mbokkam ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom yokk ay xéewalam kon bu ko defee ñi ngi feggoog sunu baay euh, baay Malick Sarr moom baay Mour saar mat ndax maam Cheikh Rafal dañu woon mag ne mag mu ne wàlliwlu ñu ne ko fàllu tax mu ni daa ba tàyyi euh, dégg ba tàyyi euh, gis ba tàyyi ñu ngi lay siyaare bu baax euh, ñu ngi lay bëggee euh, jëf ji at mu ne nu ànd ko soxna si dajale ko fii ci Mbàkke mu jógee fu ne ci biir réew mi ak bitim réew ñor koo jébbal euh, Touba ca kanam tubaa ja kanam war koo jébbal mboolem sancaani ak mboolem gox yi fasantikoo nekk ci dëkk bu selli bii mooy tubaa Touba Baye Malick asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Khadim wax bi yegg na foo xam ne daanaka lu ci waaye di tegit ak tegaal teg la dong waaye wax ji yegg si na. fi mu war yegg fu ne yegg na fa lañ ci war a waxal wax dëgg yàlla wax nga ko lu baax nag moo dul jeex wax nga dëgg soxna Amy Yàlla ak ñi mu àndal ñi fi teew te teewal fi mboolem ñi fi teewul ñu leen di sant bu baax ñu leen di gërëm te di ñaanal te di ñaanal soxna Amy Yàlla noonu nga ko waxee fekke gën ko daan fekkee ba ren ñu fekkewaat ko noo ngi ñaan yàlla nañ ko fekke at yu bari lool te itam ànd koog moom ñu di ko liggéey te mu gën a dolli ko bu baax te jàpp naa ne itam dina gën a dolli ko ndax lii ngeen def nii tey su ngeen ko xoolee man sama xel day dem ci ba maam seen bu Njaay di fóotal Sëriñ Tuubaa te saa bu indee póot mi muy yëri aji màgg yi ndax noonu la ko sama baay daal waxee bu indee yëri ay aji màgg ji day indaale ay bagage ay daal ak i mbaxana ay sir ak i e, mbubb ak i ak i tubayam ak i e, loo xam ne nit ku baax war na caa mën a lu maam Seydou bu Ndiaye dana ànd ak soxna Asi Diop mi nga xam ne moo ko Cheikh Ibra ak maam Saliou Fall ñoo bokk ndey ak baay indaale ko jox ko sëñ Tuubaa aji màgg ji kon yéen itam bu fekkee ni yàlla xëyoon na leen ci góorgóorlu ak ndimbali yàlla sunu borom ngeen nekk ci noonu nga ko waxee daayira yooyu koy jàppale ñii ne bitim réew ñii ci réew mii andi lu toll ni lii ñu fi indi liggéey ko liggéey bu mel ni ñu liggéey ko ko teg ko ci loxoom mu war ko fab di ko tegaat ci loxoom Serigne Touba dafa mel ni maam Seyna bu Njaay moo yëkkatiwaat ay yére di ko jox Serigne Touba ndax kat moom mi sëtub maam Seydou bu Njaay la kon nag bu dee sëtub maam Seydou bu Njaay la maamam doon def démb di ko defal Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu di ko def te yemalewu ko fii xam ngeen ni fi mu koy fi mu ko jëmee bari na ndax moom loolu nga wax rek boo ko séenu muy dem sëñ Touba ci la jëm ba fa la jógee boo dajee moom ci sëñ Touba la jëm su dajee yow ci sëñ Touba la jëm boo ko fekkee fi toog ci sëñ Touba rek la nekk kon na si lii nga fekkee tey ren te daan ko jëf jëf ju mel nii nii lañ ko daan defee sa ginnaaw yàlla mi la ci wërsëgalee ren nga fekke ko nag yàlla na la wërsëgalee nga di ko fekk at mu nekk te mu ànd ak wér tamit sa coobare ak sunu coobare nun ñëpp ñoo ngi sant itam nag waa Touba ca kanam ndax ñoom dañoo indi benn liggéeyin woo xam ne wii ak benn wax boo xam ne ca la ñu nekk di laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam amul fii ci réew mi amul adduna tey ku xamul ñan ñooy Touba ca kanam mbaa gusoo jëfi Touba ca kanam mbaa doxoo ba dajeeg jëfi Touba ca kon nag soxna Amy Diallo Ndiaye mi jàppale Touba ca kanam boppale boppam lay jàppale waaye Serigne Touba la jàppale bu ñëpp meloon ne Touba ca kanam day ah loolu da xañ na waaye li ma bëgg a bu ñëpp mel Touba ca kanam euh, dëkk bi dana gën a dox beneen dëkk dina dox kon ñoom it yàlla na fi yàlla bàyyi ñu ngi siyaare sëñ Abib bu Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa gi waaye ñu ngi siyaare mboolem ku koy jàppale ci liggéey bi te fas yéene ànd ak soxna Amy Yalla Ndiaye nag tey jii nu tàmbale ak fa fu mu mën a yem ci liggéey ak fu liggéey bi mën a yem te du taxaw ndax liggéey bi sëñ amul taxaw noo ngi siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di siyaare mboolem ñi di siyaare soxna Ndey bu mel nag bu baax loolu nga wax loolu day jàmbaar ànd ak soxna ami ami ami ami ami ami yàlla jaay mii soo leen gisee da ngay defee ñoo bokkul nekk ay xale ba doon ay mag ba doon ay ay ay mukallaf waaye soo déggee seen waxtaan nga xam ne Serigne Touba leen boole waaw boo déggee seen waxtaan gis leen ñoom ñaar ñu toog da nga daal di xam ne ñii Serigne Touba leen boole waaye du caagi nag dañoo juddoondoo fi barab mbaa ñu yarandoo fi barab mbaa ñu ànd fi barab waaye noonu la mel ak ñi ci des itam ami jërëjëf yow it li ngay laaj ñi ngi koy laaj ñi ngi koy ki nga koy jox ku ne xam na ko muy Serigne Touba te ni nga koy joxe lu woore a wóor doon lu ñu yëpp teg seen bët la nii dañ ko daa defee at mu ne yal na yàlla yàggale te yàggal ñëpp sëñ Xaalim ñu ngi sant ñëpp di sant sëriñ mi ni nga ko waxee mu ne ci kër gi te Cheikh Ibrahima dañ ne ku la gënub aaw gën lépp taaw gën la jawriñ bu ngeen digaloo moo ëppale la ndax bu nekkoon fii kat lu ñu defar mu yàq maa lu ñu def kenn du ko gis naa ma ki naangam kon loolu itam yu bare bare du mën a sotti sant yow itam bu baax ndax yow da ngay doom di taalibe bi lépp di loxo ah, di sant sëñ ji li ma donc ko gi sax waaye dégg nañ ko ak mboolem ñi fi teew ñëpp rek. asalaamaaleykum eh, maa ngi nuyu ñépp di siyaara ñëpp di sant yàlla ak yeneen bi ak maam borom Tuubaa ak maam Cheikh Ibra Fall di sant eh, sëñ Cheikh Bintu di sant mbooleem ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd bokk liggéey bi eh, niñ koy waxee rek soxna am yàlla Njaay Baay Fallu soxna jaara bu sa Paris Baay Fallu Tuubaa ca kanam Paris jëwriñu daayira maam bu Ndiaye diaspora jëwrinu daayira subul salaam international jëwriñu Paris Pôle 10 groupe Baye Fall international présidente association Mika France présidente association maam bu Ndiaye diaspora international ci ndigalul sëñ Cheikh Bintou maa yor maam Seynabou Ndiaye bi kon maa ngi nuyoo di siyaar ñëpp rek di rafetlu liggéey bi nga xam ne comme ni niñ ko waxee rek duñ ne guleet yàgg nañ ci depuis 2019 di ko def àndandoo ko nag waa réew mi ak waa bitim réew yëpp ñoo ko àndandoo di ko def macha allah muy jëf joo xam ne waa France ko jëf euh, ma ànd kook waa coordination France ànd kook euh, social bu ma nee soxna Fatou Thiam ne soxna ne sëñ Khadim Badiane ak señ Lamine Sarr coordination France sociale ma ñëw ne soxnaa li ma dugg rek ak man mi ak waa Île-de-France ma jiite nag coordinate ma jiite nag massification Touba ci kanam France yëpp di sant bu baax nag liggéey bi bañ ci nekkee bañ joxaat ñu ci boobu ndombay tànk nga xam ne daanaka liggéey bi laajte wu ci am solo la Touba ci kanam may sant ñëpp ñu ma ci àndal. di sant nag ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa àndal collecte bi ndaxte collecte bi année bu ne dafa am ñoo xam ne liggéey bu ne ñu ma koy àndal ah, kon nag maa ngi leen di sant commencé ko nag ki Baye Malick Sarr mi nga xam ne yàgg nañu ànd ak moom liggéey bi muy borom talaata ji macha allah ah, sëñ bi boole kook ñun nag mu toogal ko fi sëñ Cheikh Bintu moo ko booleeg ñun pour mu remplacer ko ci liggéey bi sëñ Xaadim naa mais di suñ coordinateur may sant nag kii nga xam ne moo topp ci man muy soxla Ndey Mbuub nga xam ne sëñ Touba rek man lii ñi ngi doog a gisante te ah sedda yàlla ñi ngi doog a gisante ren te ay at a ngi ñuy ànd di liggéey man nag maa ngi sant Serigne Loum mi itam toog ak ñoom sëñ Xaadim ak ñëpp ndax man fii kat lii xanaa maa ngi koy doog a fekkee ren te dara mu si cee manqué nii lañ koy taxawoo bu ma fi nekkut itam mu ànd ko ñi ñëpp coordonné lépp kon Serigne moom it ku ñu sant la ci liggéey bi waaw euh, Fat Diop Baye Mass mi toog euh, ku ne daaw xam na ne jëmm ña nga toogoon fii waaye ren ci koñ bi ndax nit say dëkkandoo mm, te moom dañoo bokk sama yaay ndey Siise mu doonoon yaayam ma jox ko ko ren macha allah ma di ko sant moo ki mbokkam ñoom àndal jëf-jëf yëpp di ko sant di sant waa Linguère suñu waa mbokk yi ca Linguère mama Khady Ndiaye ma ma ko jox macha allah gis ngeen ni mu yoon yónnee mu ngi nii juróom ñeent saako yi ci suñ ginnaaw. yëpp ñoom ñoo ko yónnee di sant euh, Ndeye Awa Mbeng mu daba jaay moom laa ko joxoon moom itam ñu ànd def ci liggéey bu am solo yónnee fi ay bagages yu dul jeex du xaaj di sant soxna Fatou Kiné Thiam soxna ndey moom mi xam na nekk fi waaye macha allah daanaka bureau bi luñ ci coordonné xalaat yu bari daf ñu ci teg ci yoon di xale nag di jàmbaar lool ci liggéey bi ak i mbokkam indi fi bagage yu baree bari ay dàll ak lépp indi na ko fi macha allah di sant bu baax soxna maam Jaara Sarr waaw moom it ñu ànd liggéey bi macha allah di sant soxna Buri Njaay di sant bu baax ñi may lim ñëpp mooy jëwriñ yi ci bureau bi sant soxna wu lay Ducré macha allah moom itam jàmbaar la lool di sant nag koo xam ne yaay la ci ñun di Baay Faal di soxna Ndey Fat Sise mu Cees mu yónnee fi ay colis colis macha allah ci ren jii di sant bu baax soxna Buri Njaay mi nga xam ne colem yi sànq lañ ñëw farlu na ba cole yi bokk ci joxe bi ren te yàgg na ko ànd ak ñun di ko def ñu ngi koy sant di sant bu baax soxna Mbende Jaañ macha allah moom barkeelu na euh, yónnee fi kii la fi yónnee addiya macha allah yàgg nag ci liggéey bi loolu moom yërëb social bu ne jox nañu ko ñu koy sant bu baax di sant euh, Adja Bongol Diouf dakaar moom itam joxe na ay bagage yu bëree bari Euh, mi ngi noonu joxe na barkeeloom itam ñu ngi koy sant bu baax kon daal ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ne maa ngi ñoom a ànd liggéey bi nag di waa Île-de-France gi yëpp nag di sant daayira yi nga xam ne ñi ngi Île-de-France dañoo takku nag takkutoon nag ren macha allah def ci collectif bi loo xam ne daan nañ ko def waaye ren dafa rawati bu ma nee waa daayira alxijaratu ci njiitul sëñ gàmmo euh, macha allah soxna yi tubaar fakkal la ñu ngi leen di sant dañuy tënk rek ndax bëgg ak gàttal di sant waa Jawartulaa bu baax ci njiitu sëñ Basir Cissé soxna yi macha allah soxna Jawartulaa ren dañ maa soññ sax nag ne ma xanaa collecte nga naan def doo ko def laxasaay yi ngay jël macha allah maa ngi leen di sant di sant bu baax waa daayira Saalihaat waaw Touba Paris ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant waa Jaalibatul bu Paris ngi leen di sant bu baax a baax di sant bu baax waa daayira maam jaara tey séeréer asir association femme de France di sant bu baax euh, waa daayira waa kër sëñ Saalim ndigal ci ñu ngi waaw ngi leen di sant bu baax ñu ngi maa ngi sant daayira Île de France yëpp nga xam ne liggéey bi dañ ko ànd ak man def ko seen liggéey maa ngi leen di sant di leen jaajëfal nag di leen santit ndaxte ticket yi Touba ca kanam yi kat gis naa itam ni ngeen ci taxaw bañ ma joxe massification France bi yëpp jël ngeen seen i di ko wecceeku ma di leen ci waaw góoral nag di leen wax ngeen gën cee jàpp nag ndax Touba kat dañoo soxla ay fonds soxla ay koppar liñ fi sumb ci ay liggéey kenn xamul nu mu toll te jinne yi duñ ñu ko defal ñun taalibe yi rek ñoo ko war a def kon nag maa ngi leen di sant bu baax ci ni ngeen taxawee di sant waa daayira Zikru Laay Baay Faal ci ndigatul jëwrin Gàmmo euh, jëwrin Balde ak Baye Ibrahima Faye macha allah nga xam ne rek avant mooy ñëw yónnee na ma versement ay ticket Touba ca kanam ñun ñëpp maa ngi leen di sant ni ngeen jàppe ci liggéey bi ci laxasaay jàppe ngeen ko ci ticket yàlla nañ koy ànde yàlla na France jël numéro en ci liggéeyam sëñ Touba bi Touba ca kanam yàlla nañ ci jiitu yàlla nañ ci bay suñ waar bu baax a baax a baax waaw bu baax a baax waaw maa ngi sant soxna Ndella Diouf ay collègues ñëw na maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ci jataay bi di leen sant bu baax a baax nag di sant bu baax di wax sëñ Saliou Mbacke sëñ Mountakha yal na ko fi sunu saxal sëñ Saliou yal na yokk leeram sëñ Mountakha yal na ko fi sunu borom saxal man la soxna Ndeye Mboub taalibe sëñ Mewndu Jaxate borom këll bi. sant bu baax nag ma sante sama ñaari waajur maa ngi sant soxna Ameth la Njaay bu baax. baay Fallou maam jaara borom Touba ca kanam di jëriñ ci daayira maam Seynabou Ndiaye di ko baax nag di ko bëgg sëriñ Touba ndax li nu boole mooy sëriñ Touba te sama rak soxna ma Mariam Mbuub moo ne woon ci daara ji jël ko boole maa moom jox ko sama numéro mu dugal ma ci groupe bi te booba léegi rëccuwuma ko ndax boo juddoo fekk sa ndey sa baay nekk ci liggéey Serigne Touba yàlla xiir la nga ne ci santal sunu borom. ndax ñun loolu rek ci la njaro sama yaay alimaane ko jur alimaane moor jimbe ko jur moor jimbe daal noo doon maam borom Touba ci njaarim kon kooku yaakaar naa ñu ngi ci waa kër Serigne di siyaar nag Baye Malick saar bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla di yàlla yaay guddal fanam ndax mag la ci daara ji waaye day seetoog ba mu yàgg sax mookaale la ñaanal kon kooku ku jara ñaanal la di ñaanal sëñ Cheikh Bintu sunu sëriñ boobu di ñaan yàlla guddal fanam lool di sëñ Xaadim Madina di ko ñaanal jàmm ak xéewal ak wér di siyaar sañ jili waa daan mi mu wax ak sëñ Mourtala Amar ñoom ñëpp ndax yenn saa yi day ñëw ba sama kër sax di ma ñaanal kon loolu yàlla ak yonent bi ak Serigne ñu boole te lépp soxna amee te yàlla yow la ndax bu ngaay neexee mexee ndax peccum liir mu neexee yaa jaa jàpp ca mbagg ndax bu nu toogee di ànd liggéey Serigne Touba nga boole ñu tey jii ay ati at ñu ngi liggéey waaye tey jii lañu yàlla mas a gis ñu gisee nga jóge Paris ñëw nga wax ma damaa bëgg ma ñëw nga yebal oto mu jël si ma kon loolu sant yàlla di sant euh, Fadio Baye maas bu baax a baax a baax di sant sëriñ mi nga xam ni itam mi ngi ci kër gi ndax bagage yi mooy dugal moom laay woo mu dem jëli ko te ku baax la di ñaanal ñëpp jàmm di siyaar sa euh, soxna Fatou Kiné am bu baax a baax a baax ak soxna Maam jaar a saar maa ngi siyaar ñëpp di siyaar mboolem ku nekk ci Pôle diis groupe bu Baye Fall international yow soxna am yaa ma bàyyee lépp ndax danga maa jël jox mu ëtt yi. ni ma xam naa ne sama loxo xat na waaye ma ci jàppale loolu bu la neexoon doo ko def waaye nag ku baax nga maa ngi siyaar ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi ci groupe bi maa ngi lay ñaanal di ñaanal tam sama mbokk yi nga xam ni fu ma jógee ñu jóg muy sama jabari càmmiñ yi muy sama rakk yi muy sama sët muy sama dooyu mag yi muy sama càmmiñ yi ma ci tuddee kenn muy sama yaay Anta Mbay tudd naa ñëpp ndax moom itam fu ma jógee jóg na ndaxte kenn mënul dara ku man say bokk la dimbali te ñoo ma dimbali ma laa tàllee sama këll bi waa Paul 10 waa international groupement maam Seynabou Ndiaye ñoom itam sama këll bi saa yu ma ko tàllee ñu def ci dara te saa ma xëyee teg leen ko te laaj daa métti te kuy xam ne boo laajee la ngay laaj danga nga koy jëmale ci liggéeyu yàlla yonent bi ak Serigne loolu ab taalibe dékku ko ba boo laajee mu defal la ci sa këll bi ëmb yére jox la kon maa ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp jàmm. ñun de ku nu woo ci liggéeyu Serigne yàlla bu baax a baax a baax a baax. di sant Mahamadou Fadal di sant sëñ Abo Baraka mi nga xam ne moo ñu dugal mooy sunu tànk di sunu loxo ci yoonu Serigne Touba ah man Serigne Touba yaakaar naa ne ku ma ci woo dinaa la mën a wuy si bu baax a baax a baax a baax. sant nag soxna am Ndiaye yàlla mii nga xam ne Touba ca kanam bañ ci dalee yëngutu yàgg na waaye ren damaa sas ndax ajaratu Dior Gaye ak soxna Fallou Ndiaye ñoom laa daan liggéeyal ci Serigne Touba mii ci Touba ci kanam waaye Ami Ndiaye mii dafa am lu nu bokk ajaratu ndey si sa këram gii fi laa nekkoon sama rakk yi nekk fi mu baax lool bëgg su ma waxee mu ma loolu Ami Ndiaye defal doyut man ndey si mais bu ma sañoon Ami Ndiaye day jënd or la ko takkal tey ji yaa ndey si ah gémmiñam gaa ngay wow sama gémmi ngi di tooy. waaye li nga ma defal moo dàq or ndax lépp fi leen koy bàyyi nga jël lépp nag teg ko sama loxo ren jii mooy sant nag sama bokk yi ma ko bokkal bu baax a baax a baax sant samay jabari càmmiñ ak samay rak ak géer ñi ma dëkkal ñépp a ci dugal seen loxo ba ñaari saag yi ma indi fii ñoo ko ci def kii xam na ni yéen a bokk daa jël indil ma mu ndey jóob mi soxna ndey mbuub yow borom kër bi di la sant bu baax te di la ñaanal fan nu gudd ko wér sa liggéey rafet na di sant waa France ndax ñi ngi jàppale Ami Ndiaye gis nañ ko bu baax ndax nii ku fay taxawaalo ndax boo fa nekkoon neneen nag kon doo mën lii teg sëñ Tuubaa rekk fi ne sëñ Tuubaa rekk fi ne de leneen wu fi lu waay def lu liggéeyal sëñ Tuubaa perte nga lu waay def lu jub jubal perte nga. am yàlla Ndiaye sas nga ma de yàlla na la yàlla fay. ak yonent bi ak Serigne Touba ah di ñaanal nag sëñ aboo Baraka mu yàgg fi loon Mbàkke te nag ku ñu ràññi la ku ñu xam la ku ñu bëgg la lu ñu am rek yàlla ak sëñ Fallou tax ah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. ñu yàgg fekkee jotaay bu am solo bii. nga xam ne liñ naan infaax fi sabilillahi muy jël sa alal di ko dépenser ci yoonu yàlla comme ginnaaw nag liñ ko baaxoo wax ci kàllaama kocc mooy jël sa alal di ko joxe ci yoon yàlla daa yombut nag daa yombut daa yombut kon nag bu leen yàlla defalee tawfiq ak taysiir ba ngeen mën di jël seenu ñàq wi ngeen ñàq ba noppi maam di ko dépassé ci yoonu yàlla ndaxte li gën a yéeme mooy fekk jullit boo xamante ni maanaam amul sax lu mu maam nga jël ndox rek jox ko mu xewloo ko li ci nekk ji tiyaaba kenn xamut nu mu toll rawat na maanaam koo xamante ni mën na cee sol ba solal ci ak njabootam maa tamit mu jël tamit loo xam tamit mën na def tamit ci bis bi ñu dégg man muy bis it boo xamante ni maanaam moo nekk bisub jullit ñi kon loolu lu ama ama am am solo la di ñaan nag suñu boroom mi nga xamante ni gëmmut nelawut ndaxte moom rek moo jërë jëfal nag yàlla keneen koo jëfal nag ku dul yàlla ah jëf ji dee naax saay de te lii de jëf la ngir yàlla tax te nag yàlla moom lépp mu dox suñ Fall di wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla jaamu yàlla ci jaami nag ci ngeen nekk mooy lii kon lépp ay cant it ku gis bagage yi ni mu demee nii nga xam ne li suñ boroom di wax naan feeg joxewoo li nga gën a bëgg na leer nañ ne doo am tamit ah li nga bëgg de kon da ngeen a jël li ngeen gën a bëgg muy yére yu riis yu am solo yoo xam maam kenn ku nekk mën na koo sol ci yow nga jël ko tamit joxaat ko say mbokki jullit ak say mbokki taalibe loolu nag ak cant na ko yaatu lool di ñaan suñu borom mu defal leen taw feex ak taysiir ak kattan gu ko mënee goo xamante ni dana am fu mu tàmbalee de liggéey bi nag yemukaay bi moom kenn du ko takk fenn liñ bëgg mooy daal muy yokk ci at mu nekk mi gën a yokk di gën a tamit am tawféex te it suñu borom di may kattan gu koy fekkee di ko tal. di ko moom tamit di ànd ak yéen ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi rabbana la ilaha illa lahu ndimbalo faal yermande dooli biir faal ak bidee may nu baax faal may nu leer faal may nu loodoo tul nango ñoo ngi ñaan faal dellu ñaan faal yal na ñaan yépp nango initiative bi nga xamante ne waa Touba ca kanam ñu ngi koy def initiative la boo xamante ku ci ne war na ko saluer parce que lu baax la fekk ay néew ji doon ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw nga yëkkati ay ay baax xeetu baax baax bu nekk di leen ko jox loolu kenn mënul am seen fay ñi ko initié tamit di ko def ñi nga xam ñooy responsable yi di sama sœur bi nga xam ne ñu naan ko soxna Ami Yàlla Njaay man moom mënuma ko fay parce que nit ku la jox confiance jox la responsabilité te lu du la laaj mukk compte waaw fii ci kër gi man maa fi nekk à chaque fois lu ñu fi def lu nekk maa koy def te du ma laaj mukk lii noo ko defee wala naa ko defee dama koy wax rek mu am ci gëm nga moo moom ni ma ko waxee rek noonu la koy téye quoi noonu la koy jàppe xam nga loolu tamit yombul waaw ak lépp responsabilité bu ma jox même ba ci xaalis su ma ko joxee tamit ak nu ma ko mën a doxalee tamit du laaj mukk noo nan ak nan nga ko defee noonu baax na rek la ciy teg waaw enveloppe tamit dinañ jël ni enveloppe bii def ci nangam enveloppe bi suñ ma ko joxee duñ ko mës a tijji nii enveloppe di xool ndax enveloppe bi somme biñ ci def ndax moo ci nekk xamal yooyu yëpp confiance la maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko fan gudd ak wér gi yaram ak mujj gu rafet rafeta rafet ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp. enveloppe bi nag ay xeetu kii la somme cent mille francs moo ci nekk boo xamante ni ñoom tamit ay ndimbal la quoi waaw moo ci topp ni moom nekk ni cent mille francs waaw ma gàttal wax bi nag di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp fan bu mm-hmm. rafet a rafet a rafet jërë ngeen ah, jërëjëf euh, mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew kàddu yu am solo yi nga xamante ni euh, sunu yaay soxna Amira Ndiaye yëkkati na ko waaye ki nga xamante ni mooy soxna Ndeye borom kële gi yëkkati na ko waaye sunu baay Baye Malick Sarr yëkkati na ko waaye soxna Fatou Diop Baye Mass yëkkati na ko ba ci euh, sëriñ Djili Wadane yëkkati na ko ba ci sëriñ Loum ñu ngi ñaan. Euh, kàddu yëpp rek yàlla na sunu borom saare ko ci réew mii nga xamante ni mooy sunu dëkk bu tedd bii nga xamante ni mooy Touba waaye yàggal fi sëriñ Abo euh, Baraka moom soxna maam Soy moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ndax sëriñ Abo mooy kilifa ak sëriñ Abibu Touba ca kanam ndax ñoom ñaar ñoo bokk sëñ Fallu ndax sëñ Maafaal ñang ca Gànjool moo jël sunu maam soxna Amin te ñang eh, dénk ko sëñ Mourou Moussa Fall sëñ Mourou Moussa denc ko am ci Moodu maam Ami ñang muy sëñ Mourou Amin te Fall nangu ndigal am ci soxna maam say ñu jox ko sëñ Fallu mu am ci sëñ Aboo Baay Fall yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér yàggal fi rakkam ju baax ji nga xamante ni moo jiite liggéey bi muy sëriñ eh, bu Mbàkke jëwriñu Tuubaa ca kanam yàlla na sunu borom yàggal ko waaye sunu yaay soxna Ami Yàlla Njaay mi ngi leen di màggalu maam Seeni bu Njaay gi nga xamante mi ngi koy def Paris at mu ne di ci ànd ak daayira maam seeni bu njaay di ko defal maam seeni bu njaay waaye di ko defal mbooleem umma islamique foofu ca Paris di ci soññ mbooleem daayira yi nga xamante ni soxna Amina la Njaay seq na ko uh, ak ñoom di demlante ak ñoom mooy daayira yi nga xamante ni lim na leen mboolem daayira yi nga xamante ni ñi ngi Paris le 21 uh, septembre la màggaluk gi nga xamante ni mooy màggaluk uh, maam seeni bu njaay Paris diaspora waaye ku ne xam ne ni le 21 septembre boobu mu jàpp nag ku ko tudd xel yépp dem ci Euh, sunu jàmbaar ja euh, Serigne Touba Khadim Rasoul aji màgg ji histoire dootul fàtte le 21 euh, septembre waaye histoire dootul fàtte le 5 septembre ku ne xam na ni moo le 5 septembre ak le 4 septembre nekk màggalug ñaari rakk yi ca Ndar waaye sunu yaay bu jàppee le 21 septembre màggalug maam Serigne bu Ndiaye Paris jot ndigal ci sëriñam muy Serigne Cheikh Bintou Fall euh, xalifa sëñ Mourou Abdoulaye Fall Ndar yàlla na sunu borom yàggal ko waaye sëñ Mbaye Seck sunu caméraman bi euh, jóge ba Ndakaaru di jàmbaar yàlla na sunu borom yokk say xéewal allahuma salli wa sallim wa barik ñu ngi ñaan Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér waaye yàggal fi Serigne Amdi Fall Modou Mbenda Baye Malick da ngay ñaan ñi yëkkati jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu